campagne électorale bi nag jëm ci premier tour bi yéenekaay bi di Sud Quotidien ma ngay dellu si nag ne fileeg 24 heures rek daañu ndar képp bile campagne tey jii ci àjjuma ji nag bu minuy jotee ci la candidat yi fas yéenee seeni kaak ngir mën a soobu lu jëm ci élection présidentielle yi candidat yi nga xam ne rek ñoo bëgg a wuutu président Macky Sall ci bopp Sénégal kenn ku ca nekk yaa ngay fësal say bëgg-bëgg ngir bëgg ñu daal di lay votel yi Anta Babacar Ngom moom ma ngay xupp nag jëmale ko ci kaw Bassirou Diomaye fay ne bu moy moytuwulee dana ko yóbbu ci kanamu yoon mu yem ak Bassirou Diomaye Faye nag di xam ne ni jamono ji nag yéenee mooy delloowaat mbégte mi nag ñii di baykat yi candidat bi di Déthié Fall fas yéenee def ab taxaw seetlu nag indi ay jéego ci wàllu assainissement bi foofee ca Touba ak ca Mbàkke l'info yëglekaay addu jëmale ci candidat bi di Khalifa sàll moom nag noppi na ngir indi coppite ci bopp réew Sénégal ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne moom député woon te nekkoon na fi jëwriñ te tey jii nag taxaw na ngir bëgg bëgg a njiitu réew bés bu ñu ko falee ci bopp réew Sénégal dana réconcilier nag askanu Sénégal daal di gën a bay waaram ci wàllu bonne gouvernance suqali lu jëm ci wàllu koom gi ko natt rek weesu na ko le quotidien le quotidien dellu siwaat ci candidat Benno Bokk Yaakaar bi Amadou Ba nag ma ngay promettre waa Ziguinchor mille milliards Boubacar Camara nag di xam ne ni huit mille milliards nag dina ko dugal ci wàllum njàng meeg jàngale mi Ousmane Sonko moom di dalal xelu ay militant am ne élection yi moom kenn wàllu élection yi nag dem ci bés bi le jour fekk fa Amadou Ba muy tàllal loxoom kii di Karim Meïssa Wade ne mën nañoo def ab alliance moom candidat boobee nag ma ngay dellu siwaat ci am amam ne yi nga xam ne rek ñoo ko ëpp alal seenub lim taxu koo bëri noonu nag lu jëm ci mbirum Bassirou Diomaye Faye moom Amadou Ba nag ma ngay xam ne ni daal tànneef la goo xam ne rek dafa jëm ci wàllu responsabilité wala irresponsabilité dellu siwaat ci réew mi quotidien addu jëmale nag ci candidat bii di Habib Sy waa conseil constitutionnel nag dañoo lànk jëm ci retrait bi mu bëggoon a amal ñeel candidat candidature am bloqué nañu ko fépp nag juróom-ñaari sages yooyee nag bàyyi wu ñu xel sax nag courrier bi nga xam ne rek Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye déposé woon nañu ko nag ngir retirer seenub candidature les échos yëglekaay ne greffier bu conseil constitutionnel nag jox na leen rendez-vous ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars mu fekk jamono joojee nag jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi Mouhamadou Makhtar Cissé nag doon amal tukkib nemmeeku ca diwaan bu Thiès le soleil yëglekaay di ñu xamal ne jamono ji nag li mu bëgg mooy ñu amal ay résultats yu sincère te du ànd benn ñaxtu yéenekaay Mouhamadou Makhtar Cissé ma nga doon amal ay nemmeeku nag jëm ci matériel électoral bi nga xam ne rek moom la ñu war a yitteewoo Vox Populi di ko feelu ne moom kay ma ngay dalal xel yi nag ci élection yu ànd ak yoo xam ne rek ay résultats yu sincère te ànd ak leeraange daal di caa tukkee ma ngay taxaw nag di dànkaaf lu jëm ci wàllu manipulation ak wàllum désinformation yi nga xam ne rek dafay faral di am ci jamonoy élection bi nag moom jëwriñ ji di sàkku nag ñu daal di moytandiku lépp luy fitna ak i tension leneen loo xam ne rek jëwriñ ji sàkku na ñu daal di koy dakkal bokk na ci wàllu dem beeg dikk bi ci digg diggante région yi ci jouru élection yi réew mi people la ñuy àddu jëmale nag tey jii Anna Thiaw dem na seeti ji nag ñi nga xam ne dañoo nekk ci univers des platines ku ci mel ne Didio Dollar waxtaan nag moom waxtaan wu yaatoo yaatu naam bëri na ay opportunité waaye nag ñàkkul ay tentation yoo xam ne rek am na ca yër leen bi la yëglekaay àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram réew mi quotidien dellu siwaat tey jii nag ci jongante bi nga xam ne rek war naa am ci diggante Sénégal ak Gabon bu 19h30 jotee lay ji nag ma ñii di panthère yi ngir mën a amaat départ bu yees sunu lamb àddu tey ji nag ci combat bu mujj bi nga xam ne rek war na koo amal moom bombardier yéene kaay bii di samp laaj ne bombardier ndax mën naa réaliser rêve am lu mu ci mënti doon yër leen bi la yëgle kaay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Mamadou Yatassay génn na àdduna moom moomee nag bokkoon na ci candidat yi nga xam ne rek dañ leen rëkkale ci élection présidentielle yi yéene kaay bi ne ab malaise ko daaneel démb mu daal di faa jaare ñàkk bakkanam ñu koy jaale ay mbokkam te di ko ñaanal moom Yatassay fa mu jëm